salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar salaatu. asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ci Assalaamy TV. ñu ngi leen di nuyu te di leen dalal jàmm di leen ñaanal itam màggalu ko jàmm ndaxte ñu ngi ci weer wi daanaka ñaari fan rek dox suñu diggante ak moom waaye xam ngeen ne nag màggal daf ci am pàcc bu am solo muy wàllu wér-gi-yaram ak ci jamono ji nga xamante ne ci la ñu toll xaku ne xam na ne mbas mi ak yeneen i xeeti jàngoro yi waaye itam fii nga xamante ne moo di diwaan gu Jurbel rawatina fii ci tuubaa kilifa yi nga xamante ne ñoo fi nekk te gàlloo lépp lu jëm ci wàllu wér-gi-yaram ku ne xam na seen taxawaay ak seen yitte ji nga xamante ne ñu ngi koy def depuis que weer wi teru wala sax lu ko jiitu ay weeri weer ngir nag lépp mën a mucc ayib ci noonu nag tey ñu ngi ànd ak euh, docteur Amadou Fall nekk njiitu centre de santé Daaru Tanzil kon ñu bàyyi rek euh, docteur mu nuyoo laata ñu dugg ci waxtaan bi docteur Amadou Fall ñu ngi lay nuyu te di la dalal ci Assalaamy TV. salaamaaleykum wa wa barakaatuhu euh, ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi loolu te wér ñaan màggal gi ñuy dëgmal dugg ci ci bisimilahi rahmaani rahim euh, jeexal ko ak alhamdulilahi rabil alamina barke Sëriñ Tuubaa man maay docteur Amadou Fall comme ni nga ko waxee nekk médecin chef du centre de santé bu Daaru Tanzil nekk aussi adjoint médecin chef district bu Touba nekk aussi ci màggal gi président de la commission ressources humaines au euh, district de Touba donc di nuyu mbokki téléspectateur u euh, Assalaamy TV bu baax di rafetlu nag jotaay bi bi jërëjëf comme ni mu ko waxee rek ku ne xam na ne gàlloo na ay cër yu bëree bëri fii ci diwaan gu Jurbel jëmale ko ci wàllu wér-gu-yaram waaye tey dañu waxtaane rek ci li nga xamante ne moo jëm ci màggal ko tuubaax ñu jaar ci point bu njëkk bi ku ne xam na ne docteur màggal gi su ñëwee équipe bi nga xamante ne mooy ñëw ngir di leen jàppale ci liggéey bi du jugee fu nekk ci ay diwaan ci biir Sénégal foofu lañ la leen di dalal muy sa bërëb bi nga xamante ne fa nga leen jiite fa nga jiitee mu di daaru tanzil mën nañu xam instant bii nii yan matukaay ngeen jël ak waajtaay bi fu mu toll ak équipe bi war a ñëw ñoom seen liggéey lan la war a nekk ci màggal gi. waaw jërëjëf euh, soxna Mame euh, di wax ne màggal gi moom depuis ci état la commencé. Mm-hmm. état euh, bu nga xam ne démembrement wu ministère de la santé. Mm-hmm. Ah, monsieur le ministre ak équipe am jaaree la ko nag ci région médical région médicale bu ñuy wax nag mooy région médicale di Diourbel bi nga xam ne docteur Mamadou Dieng mooy médecin chef de région bi ñoom vraiment màggal bi ñoom lañ ko teg seen loxo mun naa wax donc ñoom ñoo représenté état donc ci loolu dispositif sanitaire bi ngay wax màggal at bu jot dafay ñëw donc boobu ba léegi ñu ngi ci taxaw depuis daje ba mu ba amoon ministère de l'intérieur ba CRD yi ba CLD yi yëpp ñu ànd di ko def nga xam ne ci wàllu sanitaire yi moom ñaari pàcc la am na volet prévention am na volet curatif kon dispositif bi lool la ci prévention service national de l'hygiène ñoom weer la ñuy weer balaa màggal gi la ñuy ñëw ci dëkk bi di toppatoo kër yi ak gox yi di désinfecter kër kilifa yi ah fi ñu toll nii sax euh, nu war nañ def li ñuy wax saupoudrage pour wàññi yooyu ci dëkk bi. Mhm. ñu ñaan nag bu taw bi ba bu tawee. Mhm. day indi jafe-jafe. Mhm. donc ñoom si liggéey bu am solo la ñuy def. bu ñu loolu weesoo dañuy ci boole sensibilisation tamit parce que contexte Covid lañ nekk. ñu ànd koog SNEPS. SNEPS di démembrement wu ministère de la santé ñoom tamit am fi liggéey bu am solo di def ay caravane de sensibilisation ànd koog réseau des relais communautaires bi nga xam ne Manel Fall moo ko jiite. kon loolu mooy wàllu prévention wàllu prise en charge bi depuis am na réunion bu ñu defoon ak partenaires yi parce que bul fàtte ne màggal gi dafa am ay appui prestataire mooy les agents mhm. prestataires yooyu nag gouvernement bi mobilisé na juróomi junni ak juróom-ñaar téeméer mhm. ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett mooy 5778 agents mhm. nga xam ne ñooy intervenir ci màggal bi ci ñoom màggal gi nag c'est vrai que région de Diourbel la district de Touba waaye goxu Sénégal yëpp mun naaw parce que fu ne la nit ñi di jógee donc dakaar ci la bokk am na fa dispositif Thiès am na dispositif Kaolack am na dispositif Kaffrine Darou Moussi donc fépp fu nit ñi di ñëwee di màggal si parce que yooyu la ñuy wax les zones accidentogènes donc ñooñu tam nañu bokk si dispositif moo tax mu mu toll lim boobu donc ci biir lim boobu nag am na li ñuy wax ay points de prestation mooy téeméer ak juróom-ñett fukk mooy cent quatre-vingts points de prestation ñooñu yëpp pour ñëw jàppale leen si liggéey bi waaw 180 points de prestation le mhm. gouvernement bi le ministère de la santé teg mhm. nga xam ne si 180 yooyu mooy mooy téeméer ak juróom-ñetti fukk mhm. ak juróom fukk yooyu téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñett ñooy région de Diourbel. d'accord waaw mooy 168 agents. agents yi ñoo 168 points de prestation laa bëgg wax. Mm, d'accord waaw. 168 mhm. points de prestation. nga xamante ne day ñëw fekk si ci équipe bi nga xamante ne ñoo nekkoon fii. avant le match waaw dafa lan 168 mhm. yooyu. Mhm. ci biir Touba nag. 130 mooy téeméer ak fanweer. ñooy mooy point de prestation donc soit euh, téeméer boo jël euh, juróom-ñaar fukk ak ñaar. ñu ngi tuuba mooy soixante-douze pour bu dee région bi six cent quatre-vingts points de prestation yi cent soixante-huit donc cest à téeméer boo jël juróom ñaar fukk ak ñeent ak ñett juróom-ñeent fukk mhm. ak ñett muy 93 pour cent. mu ngi si région Diourbel parce que Diourbel am na district tuuba am na district Diourbel. am na Bambey am na Mbacké. am na Mbacké kon loolu laa bëggoon a xam ne loolu la. Mhm. état bi loolu la ministère. taxawal ci wàllu dispositif sanitaire d' accord ci biir euh, noonu yaa ngi koy junj sànq ñu muy euh, jamono ji ñu toll di période boo xamante ne ni bu xaw a bëri jafe-jafe la donte ne sax ñu ngi sant yàlla ndax mi ngi wàññeeku muy jamonoy covid bi nga xamante ne ci la ñu ne di mbas mi waaye ku ne xam na ne nit ñi di ñëw tamit euh, ak ñi nga xamante ne ñoom lañ fiy fekk daaw jëloon ngeen ci ay matukaayu am solo jëmale ko ci wàllu raxasu beeg si ñaax nit ñi ngir ñuy takk masque yi ak yooyu tey ji mën nañu jàpp ne xeex bi fan la toll toll ak yan kàddu nga wax askan wi nga xamante ne ñoo fi nekk mais itam ñi nga xamante ne ñooy ñëw ñu xam ne ba tey euh, jàngoro ji mi ngi fi te jugagu fi. waaw nu nga ko waxee contexte Covid la. Mhm. Covid bi wàññeeku na naam ñu ngi sant yàlla waaye comme ni ko sëñ Mountakha waxee Covid bi dafa yor bakkan. Mhm. suñu borom moo ko fi indi moom moo ko fi jëlee. Mhm. ñu nag dañuy fagaru mooy li ñu wax li sëñ bi wax te di ko wane. takk masque di raxas loxo yi wane nañ ko ba sonn. xam naa distanciation bi ci màggal gi dina xaw a jafe waaye bu ñu takkee masque mhm. di raxas suñuy loxo mhm. jàpp naa ne de yàlla mun na ñu dimbali mhm. kon loolu message yooyu la ñu konni di véhiculer maa ngi lay wax sànq si mbiru sensibilisation bi caravane yi xam naa ne yéen a ngi koy gis ci loolu lañ nekk demee sax am na distribution de masque ay stand yu nga xam ne ci entrée Touba yëpp dañ fay joxe ay masque relais yi ñoo koy def kon xam nga ne loolu bàyyi nañ ko xel leneen li tamit mooy point de prestation yi ma lay wax yëpp ku ci ne dinañ la jox masque ak alcogel. Mhm. kon loolu ñu ci bàyyi xel bu baax a baax a baax. bàyyi xel allah ba tey itam euh, mën nañu wax ñu nga gis euh, li nga xamante ne moo di ñàkk yi donte ne euh, kilifa gi nga xamante moom lañ ko dénk muy Abdoulaye Diouf Sarr moom defoon nañ ci ay ñaax yu am solo avant màggal gi ndaxte bu ñuy xool sax lim bu takkoo takku jot nañoo ñàkku est-ce que mën nañu jàpp itam ne ñàkk yi bokk na ci li nga xamante ne li wàññi jàngoro ji la ak tamit lan nga ci wax nit ñi ñu gën ko continuer ndax lu am solo la. loolu ci wàllu prévention moom laa doon mujjee. parce que fi may waxee ak ngi yow. di tuubaa indi nañ leen ay ñàkk. ñàkk yi ñu ngi fi donc structure yi ñu ngi ko commencé jël si. Johnson Johnson bi Sinopharm bi ak AstraZeneca bi yëpp ñëw na. ñu donc bu ko defee ku ne gox ba nga ne dispensaire ba fa ne boo fa demee ñu ñàkk la. ci biir màggal bi ak foo ci bi. looloo tax mu ñëw. kon loolu laa bëgg nit ñi xam ñàkk yi dafa baax. dina dina ñu dimbali. kon ñu xam ne ma ñàkk yi agsi na te euh, dinañ leen ñàkk ku dem dinañ nga ñàkk ku ne fa nga dëkk boo demee ca dispensaire ba nga nekk wala l'hôpital ba fa ne ñàkk yaa nga fa ñu ñàkk la kon loolu est-ce que tamit xam ndax nit ñi ñàkk ñu bari dañ naan xale waru ko ñàkku wala nangam ak naam donte ne sax am na ñu xam am na ñu xamul ak euh, jigéen ñu wérul yi wala ñeneen ak ñeneen loolu lan ban leeral nga si indil pour ñu leeral bi may wax mooy jigéen wérul yi dañ leen di ñàkk mhm. bu weesoo ñetti weer yu njëkk yi bu ko weesoo rek dañ koy ñàkk mais pas avant trois mois mooy premier trimestre de la grossesse ak xale yi amagul fukki at ak juróom-ñett duñ leen ñàkk loolu la ñu loolu jotagum ci ndigal. ci ndigal waaw bu weesoo bu ko am fukki at ak juróom-ñett dañ koy ñàkk. jigéenu wérul bu weesu ñetti weer dañ koy ñàkk mhm. waaw. Euh, d'accord léegi tamit euh, amoon na benn jafe-jafe boo xamante ne daaw ñu bari ñu ngi ko doon jànkoonteel muy ñi nga xamante ne mooy comme point yi ñu teg des fois dañuy am malade yoo xamante ne ni ñoom fi ñu nekk pour ñu faj leen du xaw a yomb il faut ñu jàll leen fu mel ni que ndaamaatu janatu wala yeneen bërëb yi nga xamante ne ñoom la seen xam-xam gën a màcc foofu mais dañuy am jafe-jafe ci wàllu ambulance yeeg yooyu tey mën nañoo xam am na ay yokkute wala ba tey itam lim bi fi nekkoon rek la. non soo gisee ñu wax appui. Mhm. ni ma la limalee nit ñooñu. Mhm. am na yeneen ñaar fukki ambulance yu nga xam ne ministère moo ko teg ci loxo euh, dispositif bi nga xam ne ñoo ñëpp dañ leen di boole ñu ñëw renforcer quatorze ambulances yi nekk fii ci district bi hmm? booleeg yu hôpitaux yi mu dina nekk tam yeneen euh, ñaar fukk ah nga xam ne kon ñoom dañu ñëw renforcer dispositif bi kon loolu moom. amuñu si jafe-jafe. Mhm. waaw kon loolu bàyyi nañ ci xel. Mhm. kon léegi mën nañu jàpp que ne bu fekkonte ne matukaay war na nekk téeméer daanaka li ci ëppoon mooy jot ngeen ko fi mu toll nii. waaw moom daanaka lii yëpp yemb na. Mhm. su ko defee nag après régulation lay nekk. régulation mooy ñuy xool ambulance fu ñuy dem ku soxla. koy woo ñu ñuy jox la ambulance nga yóbbu sa malade loolu moom. Euh, am nañ ci xel mu dal ndax yëpp yemb na. limu bërëb yi nga xamante ne ci la ñuy samp mooy yi nga xamante ne foofu dem di nga mën a faju est-ce que mën na ci jàpp rek lim boo xamante ne nii mooy yi gën a fës yi nga xamante ne boo fa demee tey as ku fa ñëw di nga mën a ñëw faju te dara du la jot ci bërëb yoo xamante ne yu jege la ak jumaa ji wala kër xalif bi wala yooyu. moom laa lay wax déjà structure yi fi ne. Mhm. dispensaire yi fi nekk hôpital déjà barab la. Mhm. am na yeneen lu ñuy wax PMA les postes médicaux mhm. naa la ko. té téeméer la ak fanweer trente points de prestation biir Touba. waaw ñu tas ko nag ci ci gox gu ne. 28 mhm. boo fa demee am na ñaar fukki. voilà PMA ak benn. Mhm. waaw mu mel ni tamit buntu résidence bi. daan am na foofu daan am na loolu moom comme d'habitude mooy li ma la mhm. moo koy couvrir centre de santé bu Serigne Saliou voilà am na 21 points de prestation. waaye tamit euh, docteur ñu fàttaleen tamit ñu ngi si jamono yi nawet ku ne xam na ne nawet ak sibru beeg yeneen jàngoro yi nga xamante ne day feeñ loolu itam ban ñaax nga ci war a def askan wi ak ñuy takk sànke ndax ku ne xam na tuyaux yi ak ndoxu taataa yi tamit day am te euh, jamono yi euh, màggal day xat-xat boo xamante ne ni des fois di ngeen yor ay malade yoo xamante ne ni mën nañu xam yan jàngoro mooy gën a fës ci màggal gi. màggal gi moom bon li ngay wax ci mbiru sànq yi. Mhm. effectivement fi ñu toll nii district bi jot na ay sànq ba séddale ko ci dispensaire yëpp. ku fa dem jigéen wérul doo doo doo ko jënd. ku amagul juróomi at doo ko jënd. ñi ñu koy jaay nag mooy ñeneen ñi waaye téeméer lañ koy jaay mhm. téeméer. téeméeri dërëm waaw mhm. loolu pour téeméer boobu bu ñëwee ñu mën a yóbbuwaat mën a amaat. Mm-hmm. waaw ndax gouvernement bi moo ko subventionné. Mm-hmm. sànq yi junni lay jar gouvernement bi subventionné ko à hauteur de quatre mille cinq cent. Mm-hmm. askan wi lim ci kii xam nga loolu am na solo. léegi nag feebar yi bëri bon yu ci ëpp siburu lañ naan wax waaye léegi dellu na ginnaaw. ndax stratégie yi ñu fi def. waaw ak maintenant lii ëpp na xëy na léeg-léeg problème mu biir. xam nga nit màggal gi dañuy topp seen ndeyjoor seen ndeyjoor mooy indi ay jafe-jafe. <laughs> waaw ak xëy na soj beeg yooyu. Mhm. yooyu daal moom lañ ci gën a gis. Mhm. xanaa ak accident mhm. waaw yooyu daal moom. ñu fàttale ni tamit euh, sa xam-xam màcc na lool jëm ci wàllu jabet ñu koy wax feebaru suukar euh, loolu la ko olof yi di woowee euh, waaye màggal gi ñamu suukar yeeg ñam yu niin yeeg yooyu yëpp day bari lan nga ci ñaax suñu mbokku caamine suñu mbokku tukkuleer yi. non li may wax rek mooy li ma leen di li ñuy wax les maladies non transmissibles diabète tension cardiaque cancer sida bu ñuy ñëw nit ñi indiwaale seen ay garab bu ñuy yàkkamti ba bàyyi fa seen ay garab paj bi day continuer parce que ñooñu seen traitement si à vie donc ñooñu faw ñu jël seen ay garab ci wàllu xéwalu bi li ngeen wax ñu koy def ñu bañ di guddee lekk wàññi diw bi loolu kese ay conseil lañ leen di jox waaye daal la appel bi may lancé moo ñu indiwaale seen ay garab. waaw du leen tee màggal. <laughs> kon euh, mu mel ni que li ñu mayoon ci temps jeex na ñu bàyyi rek euh, docteur bu fekkee am na loo xamante ne bëggoon nga ko wax te jotuñu la ko laaj am ak tamit yan kàddu ngay tàggatoo ñi nga xamante ne ñoo lay seetaan ci Assalaamy TV. xanaa kàddu cant rek ci téléspectateur bu Assalaamy TV. di leen euh, sant di leen ñaanal comme ni ma ko waxee ñaan laa ko tàmbalee. <laughs> ñu xam ne daal jamonoy mbas la nekk donte. deltu ne ginnaaw waaye nag ñu gën ñu jàppale gën a jàppale askan wi parce que institut Pasteur mi ngi fi pour seen nit ñi tey test yi dinañ xoolaale les variants parce que màggal gi nit ñi fu nekk la ñuy jógee du Sénégal rek kon dinañ xool ba xam ndax amul lu ci bees ba pare tamit am na lu ñuy wax surveillance des autres maladies épidémie à potentialité à potentiel épidémique dégg ngeen fi dengue bi dégg ngeen fi yenn arbovirose yi les fièvres hémorragiques yi mhm. dégg ngeen fi yu bëri Ebola yooyu yëpp Institut mu ngi jàpp ci liggéey bi pour di gëstu yooyu kon nit ñi ñu bàyyi xel daal moo moyen de prévention yi nit ñi ni ñu ko docteur yi waxee mhm. ak ni ko sëñ bi digle ñu ñu ñu ak moom mhm. te fexe tamit ñu profité ci ñi fi ñu vacciné woon ñu vacciné wu parce que vaccin yi ñi ngi fii ci district bi. Euh, jërëjëf euh, mbokk yi nga xamante ne yéen ñu doon seetaan ci assalaam Assalaamy TV ñu di leen di jox daje rek lu yàggul dara waaye di jaajëfal bu baax euh, docteur Amadou Fall jiite centre de santé Daaru Tanzil nekk itam nit ku baax nekk itam suñu njiit suñu kilifa ci wàll gi mu féete di wàll wér-gu-yaram waaye ñuy jaajëfal bu baax Alaaji si la suñu coordonnateur waaye itam mi ñu àndaloon ci liggéey bi jàppandiñ ko ba mu yem ñu di leen jox dig daje incha allah lu yàggul dara.